la te booba ñaari caméra laa am ak ñaari mbëgg waaye gëm-gëm laa waxee mm-hmm. <laughs> mais gis nga gëm na lii day doon télé studio yi ma njëkk jël locaux yi xam lu ma fa def mm-hmm. fond bleu ak fond vert ndeysaan waaw yaa nga fa woon di mm-hmm. ñi fa nekkoon bëri na Lamine Ba mi ngi koy seede Eva Eva Mbow ngi koy seede barke Serigne Bamba mën ma seede ah, animateur la nu woon wax nañ ko Eva Mbow moom sama animateur la Lamine Ba moom sama animateur la woon ma woo leen ñëw ma sensibiliser leen comme yàlla daf maa ci wàllu communication damaa mën a dalal xel ma sensibiliser xale yi waaw loolu yàlla daf ma ko dimbale de mën naa la wax eh. anecdote anecdote yi nga daan def ci koor gi waaw koor daan bu kenn dogoo sa kër waaw na nga ñëw mu toggal la ndogu jox la paas nga dem yooyu yëpp da ngay jàpp trois cent millions yi ngi ci waaw ba a am mooy li tax tey trois cent millions yi ma déclaré ci conférence de presse bi nit ñi ma ko mooy yow sax ñëw dama lay jël en charge effectivement waaw hmm. je un jeune un gosse très intelligent mais fan nga mës a wax ni trois cent millions ñëwul wax ma ko <laughs> eh, maa ngi ko soo ko ko wax xamul xam nga tax mbokk tey. Ah. lépp baax na. ndeysaan. ah yow gisoo lii. macha allah non non Ousmane. wane waatal télé bi nit ñi gis ko. Ousmane yow mi nekk ci régie bi maa ngi lay ñaan wane waatal télé bi nit ñi gis ko. yow gisoo lii. gis naa ko plateau yi nekk 2STV fa nekk di mi ngi nii di. léegi fi mu ne lépp baax na di. macha allah dugg nañ ci bouquet yi. YouTube bi dañuy am un de vues sur YouTube nit ñi dugg seetaan ko. ndeysaan yaa ngi tegu MacBook yaa ngi tegu plateau yaa ngi jolli caméra yaa nga fa j'ai plus de mm. xew di waaye nag ca njëlbéen bi ma ko daan wax waxuma ko parce que damaa waxu dëgg déedéet damaa amoon yaakaar ci dara ñu dem ba à la dernière minute loola kalaate yaakaar ba sottiwul ma demee fit ak ngor waaye nag sant naa Serigne Bamba ba fekk si na ma ci dama ne lépp lu télé di produit di ko diffuser fii ma wax ak yow mën naa koo produire mën naa koo diffuser mm. waaye nag bu mu tax kenn jàpp ne teg sama bët bii yëkkati dinaa ko teg ko ci la 2STV jamais de la vie. man gor laa. kenn du ma jam dinaa nii. macha allah Marceline. Mhm. li nekk ci man ci wàllu télévision ba ma gëm sama bopp dëggal sama bopp ne ubbi naa télé. Mhm. yàlla fekk si ma ci ba mu yegg fii. Alaaji Njaay ko def ci man. macha ci wàllu communication lu ma ciy wax muy baax ñu koy teg ci charte muy jub di jaar yoon Mariam Njaay ko def ci man. kee moo gëm loo tele ci wàllu projet muy alaaji waaye Marème moo ma bëggloo télé ci wàllu réussite ku baax ah, kon tey man mën naa ne sama defar ci wàllu télévision c'est la 2STV kon tey na Sénégal yëpp xam ni 3STV concurrence su télé buy dund nag ci àddina télé bu am ci àddina 3STV sa concurrence sa tawaajal sa kaw la jëm waaye 2S doomi 3STV la 2S bokk ci de <laughs> ah na leer xam la may bañ mooy kii kat coup d'état lay waaj loolu lay bañ de man <laughs> ah, coup d'état wu ma de c'est ma damaa nekk suma liggéey am lu ma gëm am bëgg ëllëg bu ma faatoo sama doom xam ne ca la ma nekkoon bàyyi naa ko ci dara lii tax may sonn ak jàppale jeunesse looloo indi le PDG euh, de loolu moo koy waaw loolu moo koy indi parce que waaw parce que bi ma defee conférence de presse bi def déclaration bi te boobu ñaari caméra laa am ak ñaari mag book tey gars yi dañoo def recherche ay journalistes yu mag ak ay animateurs mm. ak ay ay ay nit yu seen xel màcc ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu entrepreneuriat. dañu def tey ay recherche ci gis ne Afrique soo jant maay xale bi fi njëkk ubbi tam parce que boobu nit ñi vision ba ma communiqué rek la ñu jàppee ah. macha allah parce que boobu man vision ba ma communiqué mooy vision télé comme 2STV comme télé yëpp laa ubbi. Mm. parce que booba loolu laa gëm nit ak la mu gëm booba loolu laa gëm. Mm-hmm. ci li ma gëm nag ci la nit ñi defee ay recherche ba xam ne maay ndaw bi njëkk ubbi télé ci Afrique soo jant ca lañ ma nommé jox ma raaya bi. vidéo yaa ngi ci YouTube bi. bu ñu ko recherché léegi gis ko ci lañ ma fal le plus jeune PDG. de l' de l' Ouest mooy xale yóbbi télé ci wàll Afrique ak nit ñeeg ñuul ñeeg góor ñeeg jigéen ñi. Mm-hmm. ci nit ku ñuul maa ci gën a doon tout tànk. ayca waaw lii moo indi 3STV conseil bi ma ci jàllale rek balaa jàll ci yeneen question yi. kontaan mooy ndaw ñi. Mm-hmm. ah ayca waaw nanu gën a gëmaat seen bopp. macha allah nanu gën a nangoo liggéey. Mm. waaye nan teey nan dal. Mm. xam nga tax may wax loolu am na ñoo xam ne ci bi projet bi door. Mhm. bi ñu fa defee trois mois six mois gisuñu caméra yi danoo bàyyi. Mhm. dem. Mhm. dégg lu baax li ma lay wax. yàkkamti baaxul. dëgg xale bu nekkee ci yoon du yàkkamti. taas gor bu yàkkamtee rek yàqule. dëgg la na xale yi dal. tey gis nga ña demoon def ñetti weer juróom benn weer dem parce que caméra yi ñëwul gisuñu mag buggi tey bi caméra ñëwee ak MacBook bi lu koy ñëw ma ma jal ko ci digg télé bi route nationale route de l'aéroport ku dem gis ku ñëw gis ña ngay woote bëgg a dellu si mm-hmm. waaye kenn du dugg mais te leen dugg déedéet duñ dugg ah. nan ba caaka jaay <laughs> xam nga tax duñ dugg ah. loolu du àddina ah. munoo bu mettee nga daw bu neexee nga ñëw man doxew ma noonu mm-hmm. day metti nga toog mu metti nga toog bu neexee lu ñëw ñu bokk ñii nga xam ne nag yàlla damaa baaloog ñoom mu metti ñu toog boobu ak léegi daw nu benn yoon lu fa ne ñoo ko moom barke Sëriñ Bamba ayca ñi ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax di ko ciy remercier bu baax ndax tey jeune bu ne war nga mën a am say projet damay toogaat bu baax ndax dañuy dugg ci actualité ndaxte gis naa ni war nga fa doxantu léegi ci Facebook beeg euh, li nga xam ne mooy YouTube bi euh, par rapport ak li nga xamante ni moo di sa relation ak Sidi Diop foofu la ñuy commencé mhm. lan moo indi sa diggante ak Sidi Diop waaw laaj nga ma question boo xam ne question bu bu mataleeral la hmm. Euh, Sidi suma doom la. Hmm. Kheucha Sidi c'est mon fils. dañ ma koo fayee. Marceline yaa ngi may dégg. bu baax. dañ ma koo fayee bor la. li may daj ci Sidi baayam Omar Diop moo ko daan daj ci man. ma nekk ci cant gi. baayam bi ko sukk jur. baayam bi ko sukk jur Omar Diop. taalibeeb Cheikh Béthio la sama mbokkum cantaakun la. ma nga madinatu salaam ci dëkkub Cheikh Béthio ba suñu kër yee dend ñoo bokk benn koñ ca madinatu salaam mm. fa ma Cheikh Béthio may kër fa la ko may kër bàyyi Sidi Diop mii waykat bii muy Omar Diop Omar Diop moom man bi may door suma carrière di way way cant xaw ma woon lu dul xiin talmbat cool mbëng yaa ngi may dégg mm-hmm. jémbe tungu ne mm-hmm. mm-hmm. daa bokk moom Omar Diop ci ñi ma daan arrangé samay way ñi ma ko daan tegal ci yoon moom Omar. bàyyi Sidi daan ma jàppale it fu ma masaane ne ci cant ak ci bâche ak ci événement bu may woote moo xam Sorano la Grand Théâtre su ma ko wooyee da daan bàyyi léppam moom Omar Diop ñëw assisté ma. taxawu ma dooleel ma jàppale ma. teg ci fitan ma ba ma mën a xuusal sama bopp. baa xam nga ni Sidi Diop mii ki ca ndig la yoroo Sidi mii. Hmm. Sidi ñun bi ñu gën a nekk gone di jàng waay ki ca ndig. la daan ñëw di ànd ak mbaayam mbaayam di ko jàpp ci loxo muy ñëw di teew ki cant gi Sidi c'est un cantakoon c'est un produit de Serigne Cheikh Béthio Cheikh Béthio ko yar ki cant gi la yaraw ndax baayam daan jàpp ci loxoom di ko indi ki cant gi ñun booba sax ràññewuñ ko bu baax bàyyiwuñ ko xel ndax booba bàyyam lañ daan jëflante ak Omar mm-hmm. mais après la ma Omar wax ni su ma masaan a ñëw cant xale bi ma daan àndal sama doom la yàgg ngaa xam ne sama doom la ma ne ko waa dama ko daan dégg gars yi di léegi nag man asgoor laa man munoo nekk suma mag nekk suma baay nekk suma nijaay ah, lebal ma ker ba yàlla dogal ma mën a ker sans bopp sa doom juddu ñëw bokk ak man milieu bi may évolué wu muy milieu audiovisuel mhm. milieu showbiz milieu média yàlla dogal kóllëre dox su ma diggante ak moom yow baayam nga yëkkati ko dénk ma ko mhm. na ma dénk naa la sii di am naa ceew yaakaar ndax man kat yàlla dogal na fa ma féetewoo ak fa ma dëkk mënuma mhm. fu sii di joué ma ñëw taxaw mënuma contrat bu siy de amit ma vérifié mënu muy tourné bu si di dem Europe ma ànd ak moom ndax sama jot ak suma liggéey mayu ma ko mhm. bàyyi naa ak sama doom bàyyil ma ko xel bàyyil ma ko bët bàyyi Omar Diop ba ma ko wax mi ngi dund di mi ngi mën nag mi ngi muur gii di ma dégg wóolu la ci wóolu ma ci doomam dénk ma ko lan moo ma war xëccaar lan moo ma war mhm. lu dul uufal ko doomam mhm. lu dul sàmmal ko doomam lu dul téel ko doomam ngir kóllëre waaye ngir bor bi mooy lan sa baayam a lebal waaye yow laa koy fay eh man ku rey sama baay barke Seex Saaliw Mbàkke foo mën a ne ci àddina balaa maa fàq dinaa la rey. xaa déggul ma la wax. Hmm. waaye lu war a tubaab indi baatu euh, euh, euh, vengeance. vengeance. waaw vengeance la ma <laughs> lañ koy waxatee. la vengeance. waaw la vengeance. vengeance xaw ma vengeance. bu mu tuddoon ah. baax na. Ah. lu war a tubaab ko. Hmm. fayu. Ah, kañ mooy da ngaa lebal sama. mais kuy venger wu. ça veut dire am na bor way fay. Mhm. ñu ëpp ci ñuy basé wu nag seen bàyyi lañ ko la baloon mbaa seen yaay am na ñoo xam ne lañ def tey ci lu ñaaw bañ jàpp leen dugal ci kaso bi wala ñu jàpp leen teg leen ay daan tey seen bàyyi ko defoon bàyyi jàmbur mbaa seen maam def ko maami jàmbur yaa ngi may dégg mm-hmm. nañ wàññi tuuti ñuy wéy waxtaan bi waaw c'est de yaa ngi may dégg seen bàyyi ko defoon bàyyi jàmbur wala seen maam def ko maami jàmbur mm-hmm. man tey sama diggante ak Sidi Diop vengeance la waaw damay vengé wu xam nga nu may vengé woo hmm. positivement mooy la ma bàyyam lebaloon laa ne gor laa naa ko fay sa doom lii moo jur suma diggante ak Sidi d'accord tournée bu njëkk ci bitim réew en 2017 maa ngi moom a hmm. ànd loxo ak loxo tànk ak tànk bi mu toog maam moom bokk benn place hmm. production yóbbu ko foofee nga xam ne mooy Montreuil sa vingt rue de Paris mooy ñuy raxu bu baax producteur bu mag boobu nga xam ne ma nga ma nga nga France te bokk ci njabootu 2STV raxu keroog maag mooma ànd ma assisté ko jàppale ko boobu ak léegi maag mooma Sidi sama doom la c'est mon ci li mu nekk sa doom euh, est-ce que tamit seen relation gënul rattax. ci li mu mhm. nekkee ci euh, suba teel ci waa Subatel musique mhm. également ñu gis la nga def benn déclaration boo xamante ne euh, mooy moo indi coow li tey ah ça fait sur la toile mooy bakken bi mhm. vidéo bakken bi mhm. nga jël sa bakken teg ko ci si Diop teg ko ci Subatel musique ne ku leen laal laal na sa bakken bi sa beneen yeneen bakken parce que am na yenn bakken yoo jot a la ci àddina bi ba pare lu waral loolu Omaro déclaration bi sa yarama tàngoon wala lan moo waraloon loolu xam nga laaj nga ma question bu am solo boo xam ne na ma ko Sénégalais yi ñu xam ko te it yaakaar naa ne monde entier ñi seetaan Omaro mu Cheikh Béthio mu Cheikh Saliou Mbacké yépp mu 2STV mhm. te yàgg koo xam ci yar yàgg koo xam ci mbaax yàgg koo xam ci jikko ju rafet ak mën a boole mhm. ak nangul yàlla ci jaamam mhm. ñoom ñëpp am nañ tey lu leen naqari ci yi nga xam ne tey moo xew ci réseaux sociaux yi euh, dama lay jox misaal rek dama lay jox misaal bari na tey ay bàyyi yoo xam ne ci saal bi lañ toog di seetaan télé dégg lu baax li ma lay wax. bu baax bari na ay bàyyi yoo xam ne ci seen saal lañ toog di seetaan télé boo meetu ñu ngi seetaan làmb Balla Gaye Modou Lo wala ñu ngi seetaan football Liverpool Chelsea. Mhm. ba Liverpool Barça dëkk dëkk rek dégg yuuxu xam ne baat ba xam ne seen doom a ngi jooy. Mhm. seen réaction bu njëkk lan la. daaw bërët du taxaw daw dem xooli xale bi. Mm. bu ñu yeggee xam lu ñuy njëkk laajte. ku dóor sama doom xam nga la mooy tontu bi diw la doon xeexal wala du diwa ko dóor léegi nag la nga des nag mooy réaction mm-hmm. mooy bàyyi ja moom benn taxawaay lay am mooy dem xeex ak dóor doomam wala jàpp doomam ne ko muñal yàlla baax na ànd ak moom wëlbatiku dugalaat ci kër gi dëgg la est mi dégg mm-hmm. li xew nag tey indi coow li ak bës bi nii képp la demee mooy yàlla dafa dogal dama dégg sama doom di yuuxu mm-hmm. muy siidi yooyu ñëw laxasu ma ma ne lu xew ñu ne kat doon dóor ay pompe à gaz ci soirée bi ñëw yàq soirée bi. te boobu nekkoo woon maa ngi ci. ah yow yaa ngi woon ci soirée bi. maa ngi ci. Hmm. maa ngi ci soirée bi sama anniversaire la. Hmm. daa tombé sama anniversaire moom mu jël ay responsabilité na ma père ma ne ko naa mënuma dama lay fekkal sa anniversaire tey. Hmm. li ci war lépp maa koy def laajuma la dara yow sant ba rafet rek ñëw toog ma way la ma nga kontaan ma ne ko fils dinaa ñëw heure ba jàpp deux heures quarante ma doxantu naa ki ñëw teel. mais defuma ci boîte bi vingt minutes mais lacrymogène yi dolli ak pompe à gaz yi nit ñi xam ka daanu. li ñëpp di wax sur les réseaux sociaux euh, mooy mooy que ni euh, Fives benn euh, boîte la boo xamante ni. ku mhm. fay dugg ku ne dañ lay palper dañuy xool ba xam amoo loo yor ci sa loxoom déet. Mhm. Mhm. lu tax jour boobu li ni am fa. waa xam nga tey gis nga bis bu set nga seetaan loo xam ne danga naan lii nan la demee nii. ñi ko teewee lan la mën a xoole ba lii am. waaw. chaque jour nga wax. waaw hmm. def ci am loo xam ne bu waree am ña teew ñëpp laa wax ak ña leen wër ak ña war a gérer sécurité ba ak ñëpp vigile ak ñëpp. Hmm. ay cuuna la ñuy doon. loolu la ñuy wax bés booy daanu cuuna gis nga bisu daanu. bisu daanu la. bisu daanu y avait pas des caméras de surveillance. non non non ah, bis bu faay waree feeñ. Hmm. day feeñ. dëgg la. daf ci am loo xam ne fekk xewul ba noppi doo comprendre nu mu demee. mais xalaatal koo xam ne xale boo xam ne day daan dooleem Sidi. amul lu dul baatam bii di liggéey. Mhm. li muy dundee faaf la koy jëlee samedi bu jot. di ko dajale ci kontam ci lay faj soxlaam ndax moom laa am muy métier muy way amul benn métier bu dul way. Mhm. mu toog huit mois nekk en confinement wayul ba yàlla dogal ñu ne confinement bi jeex na artistes yi yeewi nañ leen mën na noo dellu ci seen bari bi kaay mu yàqamti way nam ay way dem ca soirée ba toog woote public bi ñëw mbooloo mi fees dell ba mbedd mi mbedd mi sax ko def guichet fermé mhm. nit ñi kenn foo taxaw ci mbedd mi dara desul lu ñu naan soppe yow li ñuy xaar ngeen way Sidi yow la soppee di xaar nga way Sidi way ñaari way ca ñetteel ba lakkaromase lu jolleeg pompe à gaz yi hmm. waa léegi loolu man bu ma jëkkee-jëkk gis nit ñi daanu nit ñi xëpp ñu ngeen nit ñi génne ñu ne dana dóor ay pomp à gaz ak ay lacrymogène ci fi nga xam ne mooy mooy mooy bi ma taxaw jàkkaarloog nit ñi ñuy daanu ci sama kanam ak di xëpp ci sama kanam hmm. ñu génnee Sidi hmm. Sidi na ne ko ñëpp bàyyi ñëpp ba ko mu daw ñëw ci man laxasuma jooy na ma père man xala laa liggéey rek laa xam lu waral lii mais sama yaram daw. dañu waxante dëgg. xëcca nit ku ne nit nga. taman nit laa koo xam ne nii la ma yàlla bindee. sii di laa mujjee xeexal. yàlla moo ma ni bindee. keroog ba nu jàppee Serigne Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yóbbu cees ca mag ba. Cheikh Béthio am na 4 millions taalibe xaw ma sii millions. yu ñu doon wax di ko woon na ci ay lim bind ko ci këyit. mel nu man laa wax. ci télé laa nekk di wax. mel nu man Omaro maa génn dem jàkkaarloog presse bi wax na man mii maay Omaro mu Cheikh Béthio nanu yeewi seex Béthio lu mu gën a gaaw gën a baax mu dellu ci cant gi ndax Cheikh Béthio xamul lii lii ñu ko waxal du moom Cheikh Béthio jaamu yàlla la xam liggéey Serigne Touba toog di benn jox jaamu yàlla yi parce que mooy suma Serigne moom laa yaakaar àddina ak àllaaxira kon tey lii may def dafa bokk ci man mooy ku laal ku bokk ci man ku sama nit mujj ko wax ca la ma ca xam. def naa ko nag ba tàyyi musuma caa am coow musuma caa am bruit musuma caa am wax ju ñaaw xam naa nag bii mooy cat li bii mooy sacrifice bi bii mooy sarax si danaa ko nangu sante ko yàlla mhm. waaye danaa ko leeral ba mu leer mhm. maam booy jaaw ku na xam ne suma diggante ak moom directeur des domaines keroog bañ ko fi attaqué di yàq deram naan këram gii ci pal mu yees mi la ko jëlee man maa génn ci internet bi génn ki télé bi ne leen maam booy jaaw seet naa ko yaa sept ans ci ginnaaw te gi laa ko seetee te biñ ko faleg Serigne Abdoulaye Diop xaas sama waa yi nga xam ne sama tànk càmmoñ bii moo ko faj ba mën a doxi samay soxla. balaa balaa ñoo dugg ci sëñ Abdoulaye Diop xaas. non ah. danañ ñëw damay leeral damay leeral combat yi. Mhm. combat yi nga xam ne dama ko porté ci suma ay nit. ci combat laa ñëw sax. man lan moo waral Omar Wo kan moo la garanti en fait yu bëri yi ngay joxe ci réew mi laa bëgg. waaw léegi xam nga xam nga ko sa boss rek. waaw xam nga xam nga xam nga tey gis nga nit ak ni ko yàlla bindee. dëgg la wax naa ko tànk ci njëlbeenu kàddu gi benn bakken laa Mm-hmm. parce que benn nit laa nag. wax nga ko bu weesoo ay caaxaan du ma juróom-ñetti nit duma ma fukki nit. du ma fukki mm-hmm. nit ak ñaar. benn nit laa benn nit bi ma doon benn bakkan laa am. dëgg la sëñ Bamba laa ko jox. mu jébbal ko Cheikh Saliou Mbacke Cheikh Saliou Mbacke dénk ko Cheikh Béthio ndax moom laa ne jébbal naa ne sama bopp àdduna ak àllaaxira ci bàttub Serigne Saliou kon moo yor sama bakkan. Mm. waaye man ni ma yàlla bindee laa bëgg nit ñi nangul ma ko te muñul ma. Mm-hmm. nit laa koo xam ne man na maa rey sama bopp ci sama nit. waa di jëxasaa ah, yàlla dëgg la bëgg hmm. man ñaata yoon lañ génn ci internet bi yàq ñaata yoon lañ génn ci internet bi yàq sama baay ñaata yoon lañ génn ci internet bi yàq sama yaay yàq sama maam yi faatu nga xam ne dañ ne leen ëpp na fukki at yu juróom yàq seen der samay der maam yi faatu yoo xam ne ëpp nañ 15 ans ba nu faatoog tey ñu yàq leen yàq sama askan yàq yàq ku bokk ci man mës ngaa dégg ma wax hmm. waa di jëxasaa ah, duggal ci internet bi nga def recherche après 10 ans de carrière 2010 bi carrière bi tey on est 2020. Mm-hmm. après dix ans de carrière fan nga mës gisee Omaro génn di déclaration ci koo xam ne daa wax ak moom mas naa am. Marcelin mën nga ko gis. ay dañuy bref man génn di wax ci sama bopp. waaw dañuy bref waaye su ma génnee wax ci sama nit ça veut ni ma yàlla bindee. d'accord dañuy bref nit laa koo xam ne bugguma ku sama nit. ba tey ba tey fii la ñuy resté. waaw bugguma ku laal sama nit loolu mooy waral boo laalee sama nit ma génn. dañuy bref ci lépp ndaxte euh, Omar wax na ko léegi léegi mm. bari na ñoo xamante ni yàgg na leen di taxawal di di di yëkkati ay kaddu jëmale ko ci ñoom mu doon lu rafet. Mm-hmm. waaye dañu gis ni dernière sortie bi nga def c'est vrai que ni milieu bi c'est un peu difficile. Mm-hmm. viser par exemple yow euh, say wax dafa am foo ko teg ndax da nga ni euh, almadi bi ci boppam fa nga doon jouer mhm. am na ñeneen ñu fay jouer mhm. tu vois un peu mhm. euh, donc ba tax na sax Mandiaye Seck génn na am na lu mu wax Bambali génn na am na lu mu wax keneen ak keneen génn na am na lu mu wax ba ci Faramaren gépp est-ce que du yow ci say kàddu da nga doon viser ki nga xamante ni moo di Wally sekk moom mi doon jouer foofu xam nga di jëkk genre hmm. balaa maa ñëw ci Wally damay ñëw ci suma rakk yooyu waaw ah. muy ak Bambali hmm. li ma bokkal waali laa bokk ak ñoom maa ngi leen di ñaanal seen jàmm yàgg. ñooñu àdduna du neex ba ma tontonte ak ñoom ndax su may rakk lanu àdduna du neex it ba may jëmale ab guerre baakub fitna jëme ci ñoom ndax noo bokk réew mi tay mbokk lanu xam nga ñooñu lu ma sëkk ak ñoom mooy jàmm mbaax sutura ak teraanga. ak woo leen ci télévision bu mag bii laa 2STV ñu ñëw ak seen orchestre ñu mbalax lu neex ma wax leen lu baax bu noppee ku la jig ñibbi waaye fitna du jóge ci man mukk jëm ci xale yooyu mm. maa ngi leen ñaanal seen jàmm yàgg ma ñëw ci wax ni mm. waa man yow mm. euh, nan ngay nettalee sab gént bopp ba noppi bëgg nettali gént jàmbur Marcel dañuy waxante dëgg mm-hmm. te nag man bi may taxaw di communiquer di wax fi ma taxaw ci almadi mais ñetti artistes ñu ngi doon joué almadi te Wally Seck bokku ci. dëgg la barke Seex Salim Mbàkke muy Sidi Diop ci boppam. ñeenti kër après Sidi Nirvana la benn artiste nga fa woon di joué di mbalax ni Sidi. en face fii euh, kii di joué euh, Nirvana di joué am na benn boîte bu nekk foofu fàtte naa turu boîte bi. Passion Passion. Passion la xaw ma. Mhm. amoon na euh, musique acoustique bu fa amoon artiste su mag na fa di joué. ñu mën a tudd ay tour ndax ñoom it seen ñoon newul ci wax ji boo boo leen fi tuddee ñu génn suba wax ay wax baa def ay vidéo yaa leen tooñ mm-hmm. du leen tudd mm-hmm. mais dañuy leeral mm-hmm. waa kon lan moo war a tax tey ñeenti artiste du jeu almadi omaro doomam jooy ñëw jaxasu ko jaaxle amee naqaru xol amee stress mu dox doxinu bàyyi dama ne bu sii di jooyaatoon suba suba bu sii di jooyaatoon ñëw laxasuma ma taalaat caméra waxaat est-ce que jarati na ko ak li fi jot a xew yëpp. waa xam nga lu tax. Hmm. sama dooma man du daw suma ay responsabilité Sidi c'est mon fils. doom nag mu jooyee jubi baayam la baayam man mooy taxawu ko. Hmm. te man Sidi laa mën a taxawal lu sama kaddu. Hmm. xëcca man aw ma lu wax man ay wax rek laa am man sama kaddu gi rek laa am. li ma naqari nag mooy man damaa wax ngir défendre suma doom wax ngir jàppale sama doom wax ngir soutien suma doom ñu jël wax di jëmale ko ci suma mag suma mokk mais kii sama cousin. barke Serigne Bamba Mbacke musuma am lu ma naqari nit suma àdduna Waly Seck Waly Seck ñoo bokk ndey wuri ba ñoo bokk ndey soono ñoo bokk ma dee burus sama cousin kii sama mbokk la kii maag moom fu ñu gisee duñ joxante loxo mhm. waaris yi damay ñaan lii may wax dafa am solo nañ ma wàññil way wi tuuti te indi sama jëmm ji ma jàkkaarloog sénégalais yi wax leen lu nu mën a dégg. nañu nañu ñamalaale euh, juróomi minute rek te te yàlla tax dañ leen ko ñaan. ñu boros ko rek <laughs> dimbali rek dimbali leen nu wagee may leen juróomi minute rek yoo xam ne ñu ñu ñu yeggaleeg ay ayca Omar. dama ne. ayca waaw. damay tëj ci Sidi dugg ci waal yi. waaw. man doomi jullit laa. Mm. doomi gor laa. Mm-hmm. du ma yee fitna. man du ma taalum réew. man du ma wax lu ñaaw. duma ko jëf 2010 laa door carrière bi tàmbalee feeñ ba 2020 fukki at na nit ñi génnee fu ma mas a waxee bañ dal sama kaw ci loo xam ne maa ngi ko wax dóorante ay nit mastaam archive yaa ngi fi kon du man may bàyyi ba tey di ko def siiri sama dooma amul ku dul man ku ko yàlla boole ci ndakaaru maa jàpp ci loxoom dénk la ko jàppal la ko waaye dama ne baa xam nga dara baa xam nga ne Wally Seck mii ñu ma dóor ci kawam woo naa ko téléphone ba jot ko wax ko samay engagement ci siidi ah ki laa ne di wax di waale ngi may dégg mi ngi may seetaan mm-hmm. xam lu ma ci tegal sama deret nga loo ne maa nga ca di sama doom la ni mu doone sa doom sama mbokk la ni mu doone ni nga doone sa mbokk jàpp naa ko te téye naa ko loo nekk te ak moom woo ma ci ma ñëw muy as gor moom waali ñàkk ci ñaan mm. rafet xol mm. man boppam man nitam mm. mais man man comprendre tuma Sénégal mais Marceline naa man li ma wax Waly Seck ci lu baax kenn ban animateur buy yeewoo ci réew mi ba sa ñàkkaar la Waly Seck wax ko bari na dem ndax bi ñuy vaar keroog doy non parce que parce que parce euh, que baal ma nit yu bëri dañu yaakaaroon ni moom rek ko fa doon tëgg xëy na xamuñu woon ni am nañu yeneen artistes yu doon tëgg ci biir almadi bi ñeenti artistes doon tëgg almadi keroog mhm. vendredi le 6 ñeent ñu ngi doon tëgg vendredi le 6 mhm. lan moo tax ñu bàyyi keneen ki doon mbalax tey moroomi siidi di xale di mbalax nirvana bàyyi ki mu jàkkaar lool parce que dem yóbbu ko timis pour lan c'est pas normal mhm. te dama ne man duma boobu nit ku yàq xaw loolu du ma nit kuy wax lu ñaaw du ma nit kuy boole ay nit waaye dama ne su ma demoon ba di ko def man seytaane jàpp ma ak cat dinaa ko jëmee fépp ba mu des ci parce que su ma deret la bu Wally naawee damay naaw lii may wax la dama bëgg mu leer na ko Sénégalais yëpp xam mm-hmm. man newuma fi pour di jaxase kenn baa di dóolante kenn parce que mm-hmm. taluma ko man xamul lu ma tal servir la jeunesse sénégalaise sama télévision bii 3STV mm-hmm. la télé de la jeunesse ma ñàkk ci ay millions yu dul jeex booba ak léegi pendant trois ans investi ci lu may fexe ba mu tàkk law saawaan baawaan àddina dégg ko la jeunesse liggéey ci looloo ma ñor. mais na waaye xam naa ne lamp gi dinañu dóor dama jeexal tuuti foo xamante ne ñor na sénégalais yi tey hmm. te ñor nañu. lu mu wax yàlla ni waaw. faj aajo moo loolu dana fa jeexal loolu foofu la ñuy tëjee lamp parce jeex na nañu ma may lamp lii dafa am solo waaw maa ngi ñaan lii dafa am lii dafa jur ah, coow loo xam ne ah, ah. Euh, man nit laa koo xam ne. wax dëgg yàlla eh, ay wax solo lu ma. ndeysaan xam nga yàlla muy bind ay nit ak ni mu leen di bindee xam nga tax solo lu ma. dew ma fan koy waxee Lamp Gueye maa ngi lay ñaan ngir jëmmi mbam ma bis bi day bis bu am solo te li ci war a leer dafa bari mayaat ma fukki nit dama la ko ñaan <laughs> waaw dama la ko ñaan moom su ma ko ñaanee dina ma ko may lamp suma xarit la ah. lamp maa lay ñaan mayaat ma fukki minute rek ah. ma leeral lii tàbbi ci xaas mu jeex mm-hmm. dama ne ci am loo xam ne man du sama cër sama image ak sama taxawaay ci réew mi di jëkk saa kilifa laa xale bu tuuti laa nag judduwuma waaye kilifa laa daraja yàllaa koy defal jaam te li ma yàlla defal xam naa ko plus de cinquante trois personnes ñoo boot sama ginaaw di liggéey ak man seeni loos tegu ci suma kaw loos ñu yaakaar ma ma yor juróom benn kër yu may fay wu dee man tan naa leneen loolu du dóorante ay nit ak di makaroo ay nit ak di mar ay taat nit man taluma loolu man liggéey laa tal daan sama doole ndax la may yóbbu kër ga kenn ci ñoom jox ma ko maa koy liggéey maa koy ñafe bu weer kenn ci ñoom fayalu ma sama kër te juróom benn kër laay fay laa la macha kër nday kër baay ak kër télévision baak feneen ak feneen. macha allah foo mën tax kon man tànn naa leneen lu ne fi di jaxase ay nit. Mhm. nanu bàyyil ku wax dool doon wax ja organiser ko defar ko jekk-jekkal ko ba mu baax dóor ko nit. Waly sek suma deret la. Mhm. Waly suma cousin la. Mhm. suma mbokk la suma xarit la te dama koo gëm. man damaa gëm Waly. man damaa bëgg Waly. man damaa am vision ci carrière Waly. am koo tax keroog ba muy anniversaire ca Sora ca ca Grand Théâtre maamam day wuri ba mi nga xam ne chéri la may wooye du sax jaar sama tur loo wax mu ne Omaro laa nopp nopp ma waali maag waali dañuy wujjante ci maamam day wuri ba mm. te day wuri man la tànn man la nopp nawul <laughs> bi pare def discours wax ak ma jox na ma yóbbu ko sama sët bi nekk toog muurloon naa ko dana yegg ni aw yoon ba ma ko yóbbu ne ko toogal mu toog ma ne ko yaay roi di malax te kàddu yooyu yaa ngi koy dëggal ba dama ne li ma wax si li ma wax Wally Seck ci lu baax hmm. animateur du yeewoo ci réew mi di ko wax engagement yi ma jël ci moom di ko wax nit du yeewoo ci réew mi di ko wax hmm. moo tax bi coow li bare sama papa ak sama yaay ñëw suma kër wax bay jooy naa ma ñun li ñuy bañ rek sama sama papa ak sama yaay démb ci guddi ci heure bi sama kër lañ ñëw taaj ma wax bay jooy na ma ñun li ñuy bañ rek mooy sa diggante ak Wally yàqu hmm. leen loolu man te yàqu Wally xam na public bi nag bu ñu xamul ne ci internet bi ut connexion bi téeméer di wax wax ju ñaaw ak di saagee ndek di yàqi der parce xamuñu mais Wally Seck fukki xelam ak juróom-ñaar xalaatul muy jàkkaarloo Omaro di ko jàppee noonu ak di ko ñëpp liaison jàppoon ni il est temps que ñoom ñaar ñëpp ñu xam euh, wax ci bi sénégalais di wax amul ci seen diggante parce que gis naa collage yeeg yenn vidéo yi nit ñi di def waaw xam nga ay collage gis nga dafa am loo xam ne xëca euh, fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi hmm. Wally Seck ak Sidi Diop lañ mujjee collage hmm. dama ne showbiz ba mu dooree ca Youssou Ndour ba fii may wax ak yow kolaat nañ fi ku ne moog làmb jeyam mhm. showbiz la moog làmb jeyam mm. faw nga jël kii utal ko adversaire bii ngir ñoom ñaar ñëpp mën di nos ku ne di am lu yóbbu kër ga loolu fi lañ ko fekk fi lañ ko bàyyi man basé wu ma ci yooyu man ca la ma basé wu mooy ci li ma war ci suma diggante nit ki mm. man loolu moo ma ñor mhm. waali laa la wax ci jëm boppam ñemewul ci xelam ak ci xalaatam di xool Omaro di ko xoolee bëtu noonu ndax moom xam na fi ma ko teg mhm. te xam na ne dama ko bëgg te yëg na engagement yi ma mës a jël jëme ci moom mhm. te yëg na it jaayante ak sacrifice ya daan def ci ginnaawam ngir moom mhm. kon tey mënta ñëw sama doom jooyi maame naqar communiqué ñu jël communiqué ba wéer ko ko mu di ko gëm public bee koy gëm mais Wally Seck di ko gëm te ngir bëgg nag wax yooyu mu jeex leeral mu jeex euh, bu fekkee Wally ngi seetaan na jot information bi bu fekkee seetaanul nañu ko woo. yëgal ko lii may wax. mi seetaan moom su ma dereet la su ma mbokk la seetaan du ma nangu ku yàlla bind du ma dóor ci kawam. Mm-hmm. du ma ko nangul kenn ndax mbokk la bu naawee ma naaw. te daf maa bëgg. alalam xañu ma ko benn yoon. maa ngi lay wax sànq ne la maag waale mosuñu nuyonte ak loxo loxo. Mm. fu ñu mës a gisee dañuy kottante. barke Serigne Bamba. fu ñu mës a gisee moom daf may kott fii la may fóon baa ma fóon ko fii. duñ joxantey loxo ndax cofeel gi dox suñu diggante ñun kon nanu bàyyi yàq ak boole ñu yàlla boole ñu leen séparé man du ma noonu Wally Seck mukk ci àdduna duma ma jël wax du ñaaw bàyyi jëli ba man boo tiimale woon Wally Seck ay bali fetal ak keno ma ñëw taxaw nga jox ma ko man Omaro ndax Wally deret la ma bëgg nag wax yi mu jeex te ngir mu jeex ne fi di ko wax ci télé di génn di dem muy jeexalu ko na Wally waajal te xam ne suba suba suba bu ma wàccee fii jóge entre temps 19 heures fu ma 20 fekk maa nga këram ca Noo Faar fa laay reeree hmm. waaw na soxna ñoon juróom-ñaari ganaar <laughs> boole kook firit mu doy akub soos akub mu taadar barke sëriñ Bamba fa laay reere te nit ku yàlla bind nag xalaatul ci xelam man may ñëw kër Wally Seck ngay taxaw ci buntu ma naan ma tooy na wala wow na ndax ëppoo ma fa cër na soxna ay dara waaj laa wax sunu jabar jooju aw buru këram hmm. na waaj ut juróom-ñaari ganaar ñooñ ko ba mu baax roof ko ba mu saf boole kook firit mu doy may mayonnaise akub soos suba amadoo day reer si waali toog ma toog soxna toog ñu reerandoo ba ñëpp xam ne kii jàmm laa ko yéene te jàmm la ma yéene dana ko def ndax mu leer ah, leen ba photo wu posté ko ci réseau waaye bañ a photo wu waaw kay man la ñuy vaar man man <laughs> ma vaar ku lay wax jox sa morom ñu jeexal fexe nag ba suba hmm. bu ma demee reer nan ko wax de ah. man xam la laa te comprendre ci Sénégal ah. boo defee erreur ñëpp wax te boo waxee lu baax kenn di wax waaw man bi weex wax Waly laa waa di mbalax di ko tëgal siis bi naan ko toogal wax nañ ci bi ma ko naan yaay sama mbokk yaay sama deret yàlla bu la kenn raw wax nañ ko ndeysaan bi ma ko la ci jóg dëggeen boo wayul bali fetal laay teg sa bopp dama lay rey ndax da ngaa war a way wax nga lépp wax nga lépp may na la samaam dañ ko way loon bañ nga dagg baat ba ma ko koy wax ndeysaan euh, véhiculé nañ ko ndeysaan tas nañ ko ni ñu ko tasee ndeysaan kon bu ñu bàyyi ba tey ma communiqué sama communiqué ñuy wax seen wax nanu arrêté ndeysaan waali yow suma deret nga suma xol nga suma cousin nga boo naawee man naaw ndax yaay man maa yow ginaar bu bari bu nu boole kub soos ak kub frite ak kub mayonnaise suba vingt heures maa ngi ñëw dafay dimbalee ci lu gaaw mat naa xam ci xarnu bi xaas <laughs> faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax ma mu ne waaw dafay dimbalee ci lu gaaw mat naa xam ci xarnu bi xaas sa waay du ñëw waayu keneen sa waay du xàcc jëm feneen deesu la ñam di ñam keneen sëppañ mi wër naa àdduna xaas dugg dugg xël la déng déng xël la karbat xël la jàpp xël la waaye mi sa gën a gaaw wàcc ma daan naa la wóolu ko daan dëgg fi kenn wala xaas euh, moo fa tàgg bi boole ko jox ma jaguar may dawal Marceline looy tàggoo looy tàggoo tàgg bi tàgg bi xaasa ko faj boole ci jox ma jaguar may dawal yàlla jàmmam yàgg nag ñoo la invité nag tey jërëjëf ay ci looy tàggoo vite fait sama xol dafa sedd waaw damaa kontaan ci yéen. Marceline bëgg naa. Hmm. yal na yàlla mottali. Hmm. amiin te nga yegg ni aw yoon. amiin di la gërëm di jë xëcca la révélation te yeesalaat sama yaakaar ci yow. ndeysaan. yow de barki Serigne Bamba bu ma jëloon conseil juróom benn weer baa ma tukki baa ma ne ci xat-xat bu mënumaa liggéey émission yi ma fii def yëpp nan la ko jox ndax lu ma ca man man nga ko jërëjëf kontaan naa yàlla na sa jàmm yàgg ngërëm gi nag dama koy teralee suma yaay ajaratu yaay ajaa ah. Marème maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm aw ma sa fay yàlla na nga dund amiin yàlla na sa jàmm yàgg di wax Sidi Diop je resterai toujours ton père maay sa baay tey maay sa baay ëllëg yàlla sa jàmm yàgg. ayca maa ngi leen di gërëm man itam yéen ñi nga xamante ni a ñi ngi leen bu baax a baax defe naa ni euh, wane na li nga xamante moo di éclaircissement bi ñu ci doon laaj euh, par rapport ak diggante yi fi jotoon jaar yëpp yëpp yëpp xamal ni man euh, li ma ciy wax rek du bari du gàtt dama koy gërëm moom mi nga xamante ni accepté nañu li nga xamante moo di invitation bi y' a pas de concurrence entre Wally amul amul sax mënu amul mu kenn yoonam di doxal mi nga am ndam ma nga ca kanam. gërëm naa leen ku ne doxal ku ne la nga yóbbu kër gën a ñor